ba tey ñaar match vraiment pour moi xoolee vidéo yi damay gis ni nu ñu sant xale yi ñu koy ñu koy def mais gis nañu euh, souvent dañuy les yàkkamti mais euh, ay xale lañu et puis ñin ñoo am intérêt accompagner les fofu, et puis euh, dinañ ko def inshallah, def faire rectification pour que la prochaine fois mu donne lu bar parce que ñu ngi jógee si défaite tey ñu jël ben poñ mën nañu am rafetu njort que journée prochaine war nañu mën am euh, lu si lu lu kaw si njort. mun nga def différence ñaar yooyu c' très très très très personnel. donc euh, am nañu ay bons dans la zone de finition mais ay joueurs yoo xam il faut que mu am yeneen qualité yu dolleeku pour ñu doon ay buteur souvent qualité yi ñoo leen di euh, manqué mooy nu ñuy surface bu ñuy tànn pour finir ak beneen bi mooy ànd dal. si si zone Bob souvent da di manqué te des grands attaquants des finisseurs yooyu souvent day dolleeku si seen qualité de bon joueur.